pàcc bi incha allah tout à l'heure te euh, yëngal foofu. Euh, bala ñoo sori ci loola di gala national de la presse boobu ñu wax njëkk ci fi réew mi toll ak liggéeyum journaliste euh, ak jafe-jafe yi ñu ci seetlu yan ak yan sax yéen waa convention moom ngeen seetlu ci liggéeyu journaliste yi jamono jii jërëjëf Babacar di nuyuwaat ñi nga xam ne ñoo ñuy teewlu defe naa ni laaj boobu. Euh, lu ñu amal solo la ñun kuréel gi nga xam ni moom moo ëmb ndawu Sénégal peut-être li may njëkk fàttali ñi nga xam ni ñoo ñuy teewlu mooy convention bi dafa doon ab kuréel goo xam ni la ko tax a jóg mooy tàggat reporter yi formation continue ak formation initiale euh, su tolluwaay réew mi mooy euh, Sénégal jafe na tey jilee ab xew-xew am te duñu gis taq der du ñu gis benn tasku xibaar boo xam ni amul jafe-jafe jafe-jafe boo xam ni soit dina jóge si waay politique bi soit mu jóge si ñi nga xam ne ñu moo di taq der mu doon loo xam ne nag ma ngay tàmbalee jéggi dayoo naam ñun jéemoon nañ teg ay jéego yoo xam ni dana tax ba situation bu nu mel du am waaye tey réew mi toll na foo xam ni euh, euh, dafa xaw a jaxasoo un tout peu parce que su fekkee ni euh, reporter bi nekk sur le terrain joxe na xibaar bi nga xam ni ñu faree si benn boor ba jàpp nañ ni lii mu joxe àndil ak ñoom dañuy tàmbalee tam kooku noonu le su fekkee ni dafa def itam safaan ba ña ñese des itam noonu lañ koy attaqué donc kenn mënatul am jàmm si vous vous souvenez au mois de mars événement ya am na kër yoo xam ni songoon nañ leen fii si la bokkoon yeneen i kër parce que tout simplement euh, jox nañ xibaar gaa ñi jàppoon ni xibaar boobu noonu le ñoom ànduñu si donc loolu moom mooy situation bi nga xam ni de plus en plus dañ koy dund si mim réew kenn mënatul liggéey normalement joxe xibaar boo nga xam ni ñëpp a si ànd heure boo ko defee au lieu que ñu xam ni. Euh, li nga wax moom mooy les faits parce que souvent ay accusations loo xam ne à tort la mais dañuy song directement li nga xam ne moom mooy tasku xibaar beneen bi. accusation à tort yi est-ce que ëpp ci euh, gis naa sax ci fan yi ay politiciens. Mm-hmm. di ŋàññi journalistes yi ak télé yi. naan dagguñu seeni programme di wane ay xeex. Euh, lu nu mel moom incroyable ce pays là. lu lu nu mel moom subaak jàmm dafa naa ni si sama kàdd gu ma yëkkati euh, bàyyi naa si benn pàcc boo xam ne bu yaa si seetlu boobu nga defee ni dinañ ci dinañ ci àddu mais comme ni nga ko waxee rek accusation accusation à tort yi moom moo si ëpp saa su ne parce que nit ñi lu ñuy bëgg mooy. Euh, ñoom bët bu ñuy xoolee yow yoon boobu noonu nga xool fa par la force alors que ñun dañoo am métier boo nga xam ni damay faral di koy wax saa su ne di rappeler Albert Londres moom laa gën a taamu du ko indi mooy notre rôle n'est pas d'être pour ou contre mais de mettre la plume dans la plaie mais tey jii lu gën a am solo dans ce métier dafay baax souvent man ma koy ma koy fàttali mooy su ma liggéeyee ba guddi jot ma ñibbi suma kër sama yaay ibbil ma buntu kër gi ma quitte avec sama conscience donc loolu reporter yëpp si loolu laa leen di woo mais suñu bëggee topp rythme les acteurs politiques sénégalais maintenant dinañu am yi jafe-jafe sànq yaa ngi doon wax euh, yan jafe-jafe la ñuy wax itam la ñuy dund si tolluwaay réew mi mooy takk der yi. justement fa laa bëggoon ñëw takk der yi chaque fois euh, les nerfs sont un peu tendus entre takk der yi ak taskatu xibaar yi te pourtant ay jamono yenn saay ay waxtaan da doon am ngir ñu comprendre ci xew-xew ya nga xamante ne moom la journaliste di euh, couvrir pourquoi. ça ne encore prendre. alors ñun question boobu ba tey dañ koy dañ koy poser te duñ si am réponse parce que mun naa ni benn violence la bu nga xam ne dañ koy dund te mënul expliquer wu. parce que tout simplement su fekkoon ni sax ñun sur le terrain euh, ñun ñëpp jaxasoo peut-être mënoo ñu sax identifier mun nañ ko wax mais ñun dañ see def effort bu yàggul dara dañoo jël ay tenues jël ko suñu koppar bopp defar lu toll 1000 jox ko suñu ndaw ni leen dem leen sur le terrain nga xam ne ku leen gisati. laataa muy dóor grenade wala dara au moins dina xam ni dina am njort ni ñii taskat xibaar lañ su ñëwee ba si yow nag mun na xool sa carte mais de loin dina xam ni yow taskat xibaar nga malheureusement ce n'est pas moom laa la doon wax sànq néew na Sénégal léegi jam euh, manifestation am te amul benn taskat xibaar boo xam ni teg nañ ko loxo wala nga gis koo xam ne am nay gaañu gaañu bu si mujj mooy caméra woman bi nga xam ni moom daanaka def na une semaine à ba dañ ko mujjee opéré mu doon li nga xam nag dañ koy déplorer te itam teg nañ ci ay jéego comme ni ma ko waxee ñun suñu kuréel tàggat moo ñu tax a jóg tàggat moo tax ñu xaatim ay TDR jébbal ko kilifa yi ni leen ñun dañoo bëgg def ab atelier de renforcement de capacité bi nga xam ni ñun ñooy toog taq der yi toog. mais xam nga loolu doyul waa ah, euh, waaw mais euh, doyul parce que dafa am ay taax congénital maanaam bu fekkee yow déggoo benn kalaama jàngoo benn technique. amoo culture générale bëgg doon journaliste kooku ngir renforcer capacité day jafe lool. waaw xam nga fu ma doon wax mooy ñun ñaar ñëpp suñu liggéey. constitution moo ko garantir d' abord dinaa ñëw si laaj boobu constitution moo ko garantir donc waruñoo mun a am jafe-jafe sur le terrain ñun nangu nañ de Babacar ñun tout tànk yi nangu nañ ñi jafe am na suñu métier nangu nangu nañ ñi am nañ ci part de responsabilité parce que dama koy yàgg di wax parce que am nañ dans deux semaines après le gala ñun ak Nations uni atelier boo xam ne si wàllu woowu la jëm itam parce que nu ñuy couvrir sax manifestation jafe-jafe la man mois de mars bu mujj bii boobu dafa ma daf ma yéemoon dafa ma marqué ba tey. mars 2021. oui da ngay maanaam manifestation dangay ngay dégg reporter bi mel ni ku nekk si ba awma dara benn jafe-jafe ak ñuy nekk si làmb mais ni ñuy reporter comme làmb. position également bu ñuy taxawee jafe-jafe la yow mënoo ñëw si ab manifestation. non mais xam ni euh, grenade dañuy dóor. président mi ngi euh, foog ngeen foog ngeen foog ngeen euh, jéem a régler problème bi. parce que dafa mel ni léegi dafa mel ni léegi journaliste ku amul loo def rek. da ngay dugg ci euh, xeetu journaliste yu bees yi. ah euh, toog ci plateau di wax sa xalaat. ja euh, jàppee sa bopp journaliste bu mag wala yor sa téléphone di def live ñu ne yow yaay journaliste bu mag bi mais loolu du ngeen ko réglé. waa mais Babacar da may bàyyi nag soo ma laajee ma tontu sa laaj ba noppi parce que yaa ngi may laaj lu am solo yi nga xam ne xam naa ne auditeurs yi bëgg nañ ko nga dugalaat beneen. mooy euh, comportement bi nga xam ne dañ koy gis sur le terrain foofu laa nekkoon ak yow ba noppi. pour wan léegi booy da nga may tendance. waaw da nangu ni <laughs> moo soppeeku dama ni da ngay nangu ni jafe-jafe yi ñun nangu nañ ko. mais lu ñu si amee responsabilité yéen ñii di suñuy mag noonu ngeen si amee responsabilité parce que yéen ñëpp tey jële suñ koy xool ñu si bëri dañoo abandonné rédaction yi. parce que tey ñun rek lañ fay bàyyi ay ndaw foo foo dem ndaw ñu kese fay nekk ñooy nekk sur le terrain tàggat bi nga xam ne parce que dafa am benn formation bi nga xam ni à l'école la mais beneen bi yeggali bi la ci rédaction yi ba noppi mais tey su fekkee ñëpp dañ ko abandonné donc dañuy am jafe-jafe ngir def suñuy liggéey léegi dañuy reporter mbir mi comme yëfu làmb ñuy sànni grenade nga dem taxaw fu manifestant yi ne alors que yow fa nga war a ne mooy derrière euh, taq deri donc yooyu noonu moom moo tax duñ ci mën a mus a jóg maintenant wax nga leneen lu nga xam ne également fee la tey jëlee loolu yàgg nañu ko wax tey jilee pour man foofu tamit responsabilité yi patron de presse yi la parce que ñun souvent dañuy topp euh, maanaam vue yi la ñuy wër nañ ñuy seetaan qualité bi dañ koy bàyyi de côté dañuy def la promotion de la médiocrité au Sénégal dangay gis ñi nga xam ne ñoom parce que ku warul ñu warul wax la ñuy jox kàddu lu si ëpp. bàyyi leen ñuy développer lu leen neex alors que xam nga ne chroniqueur wala lépp looy def commentaire sax bi ngay def ci biir rédaction bi métier bi daf ko ko encadré lépp lu ñuy def si liggéey dañ ko encadré mais su fekkee ne tey ku ñëw nga ne ko d'accord nga doon chroniqueur mais sar chroniqueur boo xam ne ponk bu ñëw yow am nga si xam-xam d'habitude ça ne se passe pas comme ça doon nga fi jël ñuy def chronique lundi ba aljuma mais kenn ku nekk ak sa domaine boo doon dugg donc il faut que yooyu itam les patrons de presse ñu dimbali ñu si parce que loolu lan mooy conséquence bi ñun la ñuy exposé ñun les reporters ñun ñooy wàcc sur le terrain am benn chroniqueur boo xam ne dafa jël benn position bopp ñi nga xam ne dañuy teewlu ñoom xamuñu kuy tasku xibaar ak ku nekkul tasku xibaar tant que yaa ngi yor micro rek fàtte nañ ne animateur bi wala leneen la dañu lay considérer comme koo xam ni euh, benn tas tasku xibaar la bu nekk si mbir mi dafa niroog sabar bu tas. sànq nee nga euh, vous avez confectionné mille euh, gilets jox ko euh, reporters yi mais ñeneen dañuy sol yeneen gilets et en même temps boo boo leen di couvrir ay événements. tout le monde n'est pas journaliste et tout le monde est considéré comme journaliste. mais ñenn ñi dañoo ñenn yor seen téléphone. Mm-hmm. voilà di di filmer yor sax ay seen carte de presse ak lu ni mel. loolu aussi ça facilite pas. mais y une solution moo tax ma la tenue bi may sol sur le terrain. dafay tax rek de loin taskat xibaar bi xam mun ma ràññee. ak manifestant mais ñooñu seen bopp sax dañoo dem sax muy sol tenue. mais a ñëw laa gëm que ni le terrain dañoo war a vérifier parce que les lois sont faites nañ ñu indil code de la presse. d' accord nañ ci contenu bi à la ou cas ñun ñoo demaat ni dañoo war a suñu milieu assainir ba ñu indil ñu carte nationale de la presse assainissement boobu est ce que dina sotti. parce que attention dañ jël exemple carte nationale de la presse. carte bi ñi ko njëkk am. te ëpp ci fi mu toll nii mooy ñi nga xam ni seen kattan ak seen mën-mën àggul ci mën a def journaliste donc euh, le virage de l'assainissement est très mal amorcé. Euh, jafe-jafe dina am carte nationale boobu noonu du régler problème bi yépp parce que benn pàcc problème rek lay indi maintenant gis nañ ci ay rëq-rëq le président Daouda Mine il l'a reconnu keneen ak keneen il l'a reconnu mais ñoom am nañ tey ji benn app boo xam ne suñ ko defee dañuy def benn évaluation parce que am na ñi nga xam ne waruñ ko woon am doon ay jàngalekat. fexe nañ ba dugg ci porox ndoll yi parce que peut-être vérification bu waroon am amul ñu am carte ta waruñu ko am mais tey ji métier am taskat xibaar moo doon métier bi nga xam ni comme sabar bu tas comme ni nga ko waxee amul fenêtre amul rideau amul dara parce que ku dem université peut-être euh, domaine bi nga bëggoon mu lajj da ngay jàpp ni bii moo gën a yomb la preuve les écoles même loolu lañ comprendre école boo xam ne sax da doon def comptabilité léegi soo demee yokkaat na sa beneen pàcc ba jàngalem taskat xibaar parce que léegi dafa gis ni nit ñee bëree bëri ba nga xam ni te école yooyu reconnaître uñ leen donc sur plan on interpelle directement le ministre de l' enseignement supérieur. il faut que mais école yooyu ñi ciy ñu dem di jàngale. loolu a metti ku ci ku a metti il faut que lan la ñuy jàngale si école yi parce que mun nañ fi nekk naan dañuy assainir di assainir def lépp soo fekkee ni tàggat ba baaxul dañuy wéy di dund si jafe-jafe moo tax ñun am nañ loo xam ne proposé nañ ko ak cap mooy ñu def les assises des média au moins dinañ toog ak pàcc yëpp yu nekk Sénégal ñu jéema xayma xaymawaat suñu métier bi xool code de la presse lan moo ci baax ak lan moo ci baaxul lan moo convention collective parce que pàcc boobu amal nañu solo euh, ñu xool reporter yi ñuy exploité nag lañ ciy indee saafara parce que loolu moo ñu gën a ñor naam tàggat moo ñu tax a jóg mais pàcc boobu ñun dinañ ci fekk ci euh, Synpics ak Bamba kase ngir ñu daal di koy def def nañ benn étude maa ngi koy wax léegi ci bitti étude bi mooy jël nañ au moins 216 reporters jox leen kàddu gi pour ñu dans l' anonymat ñu wax ñu yenn condition lañu nekkee seen seen bërëb ya mais yàlla xam ne ne suba dinaa fësal yenn pàcc yi mujj yi dañuy exploiter exploitation de l'homme par l'homme moo am si pat si entreprise de presse yëpp nag ma kenn entreprise de presse yëpp yu nekk Sénégal soo demee au moins di nga fa fekk benn wala ñaar yoo xam ñu ngi koy exploité ay nit ñi nga xam dañuy ñëw di tàggatu toog ñaari at si benn bërëb. ñun ci lañ bokk. doo dégg bàyyiwuma fii fii ak feneen. rajo Sénégal nga nekk nag. bon foofu am na exception. <laughs> xam nga dafa yabaate. non résultat yi dina génn baax nee naa la bàyyiwuma benn bërëb dina génn su génnee di nga ko gis. parce que soo xoolee lu ma lay njëkk a jox Bamba Kassé jox nañ ko si moom la jël ab euh, ab pàcc jox ko njiitu réew Macky Sall keroog le premier mai 17 pour cent sont sous-payés. même ñooñu nga xam ni nu ñu leen di fay baaxul kenn du leen verser couverture maladie universelle ku si feebar mu ñëw fayu naka ngay nekk si précarité ñu lay bëgg laaj qualité. mais yéen mais yéen ci seen xeex bi d'accord pour les assises euh, de la presse euh, ñëpp war nañ cee dugal seen i loxo mais est-ce que quelque part du. forme de xeex bi mooy mooy tax ba yenn yi du mos am euh, solution parce que da di bokk xeex ak ñi nga xamante ne ñoo di patronat de la presse te yenn saa yi nga xamante moom lañ bëgg. waaw xam nga nag ñun waruñoo nangu sax ñu ñuy tàggale ak suñuy patrona de la presse naam fekk parce que à un moment donné ba ma nekkee si bitt loolu laa doon wax ni waruñoo bokk ak table ak les patrons de presse. Ah, dans dans certains combats. waru leen ak ñoom mais tey cap ñun ñëpp si ne. mais du combat yëpp lañ mun a ànd ak ñoom mais tey ji si li may wax nii les conditions de travail mais suñu ko bëggee régler. il faut que ñu régler jafe-jafe yi nga xam ne entreprise yi dañ ko nekkee parce que ñun étude bi suñ su noppee dañ koy présenter patronat présenter ko Synpics dem jébbal ko jiitu réew Macky Sall pour mu indil ñu saafara mais saafara yooyu siy bokk itam mu xool naka lay dimbalee patron de presse yooyu entreprise de presse yi parce que ñoom itam su fekkee ne amuñu benn santé financière dina doon jafe-jafe ngir ñu daal di indi saafara suñu yëf même su fekkee warul doon excuse parce que nit soo ko jëlee muy liggéey weer bi dee di tax yow euh, ngay dund di dundal sa njaboot le minimum mooy moom itam nga bàyyi ko mu suturloog njabootam mais malheureusement ici au Sénégal bëri na ay reporters yoo xam ni yàlla xam na ni weer day dee bés bu ne amuñu ku leen di jox paas seen waajur ñoo leen di jox danga leen di dégg ci télé di leen gis ci télé di leen dégg ci rajo mais yàlla xam na ni kenn du leen fay dara weer bi dee et pourtant da ngay gis euh, weer euh, korite jot wala tabaski ñuy maye avance korite avance korite euh, tabaski di ko may les salariés alors que yow amoo benn contrat kenn du may dara fii Sénégal ça existe et personne ne dit dañ ko dem ba nga xam ni euh, dañ ko banaliser tellement jàpp ni oui parce que suñuy wax sax ay programme xëy ndaw yeeg yooyu mus ngeen dégg fu ñu koy waxee par exemple Sénégal di bàyyi xel ñun taskat xibaar yi donc ñun dañoo fàtte. parce que ñun mënuñoo xëy altine ba dibéer bés bu nekk ñu dem naan euh, waa poste dañoo am jafe-jafe waa ñële dañoo am jafe-jafe mais suñu mbootu bopp duñ ko mus a mu kaas yaa ngi wax léegi jafe-jafe bu si gën a rëy mooy solidarité d'abord parce que lépp lu ñuy xeex su ànd rek solidarité mënuñ see am ndam mais tey dañuy song groupe Futurs Médias euh, ñun waa i rajo ñu toog fee di kontaan ñuy song i rajo waa ñële di toog kontaan fee alors que xamuñu mbal bi day tourner day tourné dafa fekk ne la ngay wax bés boobu dafa euh, neex ma kumba rek suba su naqaree ma dem ba yow lay song alors que ñun ñoo war a def benn say suñu bëggee suñu métier bii ñu setal ko ñun ñëppay ànd jógandoo doon benn parce que nee nañ ñenn ñi nee nañ ñun quatrième pouvoir lañ léegi tey gis nañu ba doole ça c'est très loolu mooy dangereux guillemets gisoo ma lay defal nii samay pouvoir moo tax les médias ce sont les médias les journalistes ce sont des journaliste waruñoo am ñu war léegi waxtu wi jeex na mi gi euh, xew wi nag ëllëg la gala bi. Euh, ci samedi ji ci Ndakaaru ci King Fahd Palace euh, lan moo bees ci gala national lu presse ren bi. alors gala bi moom mooy doon onzième édition bi parce que ñu ngi koy def daanaka fukki at ak benn si ren convention nag doon kuréel goo xam ne kuréel gu démocratique la parce que 19 ans sept président se sont succédé à la tête de de l'institution. loolu moo lay wan ni kuréel goo xam ne la bu organisé wu la am nañ cellule partout dans le pays mooy profiter sax di wax gàcce ngaalaama à tous les reporters alors gala yi suba ak jàmm lay doon King lu si gën a am solo mooy dañoo bëgg a jaay lu ñuy jaay mooy les reporters li ñuy def lu baax si rédaction yi li ñuy def si rajo yi télé yi presse écrite presse en ligne loolu la ñuy présenté aspect festif bi peut-être ñu bëri moom la ñuy tudd mais ñun loolu moo ñu gën a amal solo loolu moo tax ñu woote boole kàkk euh, waali mu ñëw si xew mi mais lu gën a am solo mooy récompense boobu noonu au moins lu toll si 18 reporters 19 au total dinañ leen sargal si seeni i moroom ñoo xam ne dañoo def ay liggéey de terrain lu nga xam ne sa raar tey jëlee nga ko si gis muy ay documentaire ak lu nu mel ñoom dañoo dem à l'intérieur du pays ay doyens de l presse ñu jox leen ko parce que y a yoo xam ne joxe nañ seen i ñu natt leen médium boo dem ñetti nit ñu war leen sargal suba donc loolu moom moo si am solo donc dinañ jéem a def sargal leen parce que bëgg-bëgg bi mooy at yii di ñëw lu ñu leen di sargalee sax mu gën a ëpp dayoo parce que dañoo jàpp ni mérité nañ ko. mais mais justement vous êtes incohérent yaa ngi wax euh, métier bi journaliste yi ndaw yi ci nekk euh, dañoo nekk ci ay jafe-jafe. bu yéen bu nit gañee ci gala bi. ngeen jël ay ordinateur ki téléphone jox leen. jël Waly mbaa Youssou fay dix quinze millions xam nga loolu tamit yéen wul maanaam. il faut que ngeen euh, nangu lenn li mooy waali boobu ngay tudd wala Youssou Ndour loolu ñu koy fay ñun peut-être moom moo ñu mun a may programme yi ñuy def yëpp si at bi yëpp di tàggat nit ñi foofu lañ ko mën a amee suñ ko fa fayru woon duñ ko fa mu saal. Oh, non non non non non non non euh, en plus en plus non non non sur ce plan du ma nangu nga demee moom du ma bàyyi ak noonu auditeurs yi mani prix yi si ñun ba ñuy ñëw fu ko fekkoon ak fu ñu yóbbu moom moo am solo au moins on a dépensé huit millions huit millions laa la wax. ren jile si rek li ñuy sargal 18 reporters 8 millions. fay Waly 10 wala 15. doo dégg Waly moom Babacar yow itam lool du ma si débat lu mooy li wax Waly su ma ko fayee 10 millions itam jàppal ne indil na ma 20 millions. loolu noonu. ci nakam non xam nga Babacar mënuñu maa dama lay jox rendez vous 2024 décembre bés bu ñuy coppi sama bureau. parce que 2024 ma pare si nga ñëw nga toog ma détaillé lépp nu mu demee woon mais fu mu nekk nii bàyyil ma préparé wu sama événement bi nga xam ni xam naa ni kenn du la fa njëkk comme d'habitude donc ñoom la ñuy waajal di demander à ce que tous les reporters ñu xam ne seen bés la patron de presse nag laa bëgg a interpellé waaw may parce que ñun d'habitude du ñu woo reporter naan ko kaay jënd ticket patron de presse yi la ñuy wax ni leen nañ jëndal seen rédaction yi seen ndaw ñi table koo xam ni yaa ngi koy exploité wala boog la nga koy fay des am na jafe-jafe mu lay comprendre benn bés bi war nga ko mun a may mu ñëw feetu ak ay morom Futurs Médias jënd na 40 places c'est bien waaw loolu moom wax dëgg yàlla ah. yéen a ëppale table jël ngeen kat gàcce <laughs> gaaraama léegi euh, on a remarqué que prix bu ne dañ ko tuddee nit mm-hmm. euh, radio télé presse écrite ainsi euh, de suite mais une polémique jib na ci prix ah ñuy tuddee prix par exemple le Euh, télévision ñenn ñi dañu jàpp ne ki ngeen ko tuddee euh, voilà il n'est pas un exemple euh, ci médias yi. d'abord loo leen di indi ci réponse ci polémique boobu. parce que comprendre luñ souvent yenn critère la ñuy jëlee. plus clairement c'est le prix Babacar Diagne. Babacar Diagne alors Babacar Diagne reporter la woon Babacar Diagne le reporter est-ce que kooku mérité na ñu présenter ko en exemple wala déet un homme de terrain la woon. est-ce que kooku mérité nañu présenter ko euh, yow laay laajaat question bi est-ce que jàpp nga ni yow ba yow parce que ñi koy wax ñu bëri parce que bokkuñ ci métier bi ñu koy wax ñu bëri laa la wax bokkuñ ci métier ah wala ah, ah ngi ci biir métier parce qu'on est nga sa politique li ma lay wax nii xam naa ko baax a baax maa ngi si groupe yooyu fu ñu koy waxee dama ni yow ak Babacar Fall est-ce que Babacar Diagne mérité na ko wala déet laaj boobu laa leen bàyyil yéen en tant que professionnel des médias léegi euh, toll nii xaalis duggul parce que mais yàlla def na ni ñun liggéeyoon nañ lu nga xam ni même su fekkee ni dara ñëwul dinañ def suñu fête. est que xaalis bi na ngeen ko yoree baax na sa sa piis bii nga sol nii bi yàggul. lii de ba ma fiy nekk 2013. nga may may paas sax soo solee Getzner ma sol Getzner. mi ngi madame Ndiaye président convention des jeunes reporters du Sénégal jërëjëf Georges jërëjëf Soxna Naata ñu yëndu ak jàmm. vous avez besoin de caution. merci beaucoup